chers amis internautes de Lou'Bess TV dal leen ak jàmm tey nag ñi ngi fii nii Guédiawaye Wakhinane Nimzatt ci case ci case des tout petits bi seet si ñi nga xamante ne ñoom ñoo di centre formation professionnelle Metabo nekk ay jeunes yoo xamante ne dañuy évoluer ci li nga xamante ne wàllum formation professionnelle la prise de parole en public pâtisserie ak transformation des fruits saisonnière maanaam fruit bi am rek ñu daal di koy transformer dimbali si jaam yàlla yi tey nag ñu amal 28e euh, 28e édition formation fii ci Guédiawaye ñu daal di koy fas yéene teewee da may topp rek ñu dugg ci biir xool li nga xamante ne moom la waa Met Abo di jàngale waaye itam ñu xoolaale li nga xamante ne moom la ndaw yi di def ci biir ñu dugg ci biir ak suñu caméraman bu ñaawul le plus jeune cadreur du Sénégal mu di Libaas Aca topp leen mu ñu dugg ci biir xool formation bi bonjour à tous moi c'est Fatima Koné je fais partie du groupe Met je gère tout communication et planification Met Abo est un groupe composé de jeunes qui a été formé des jeunes euh, qui sont ambitieux et voulant faire partager leurs connaissances à travers tout le Sénégal, euh, le faire imprégner aux autres, aux autres jeunes de ce qui est la formation euh, professionnelle et leur permettre ainsi de pouvoir entreprendre et être libre parce qu'on s'est dit que l'enseignement, euh, euh, l'enseignement c'est bien. Euh, aller à l'école c'est bien, avoir des diplômes c'est bien. Mais être indépendant, pouvoir travailler, c'est encore mieux. C'est la raison pour laquelle Metabo s'est formé et euh, partage ses connaissances et ses ambitions à ces jeunes-là. Metabo euh, est sur tout ce qui est euh, transformation des produits euh, locaux, des fruits et légumes, et aussi sur la formation en pâtisserie et cuisine, comme ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, sur la saponification aussi. Et aussi et surtout, nous apprenons aux participants à pouvoir être, euh, euh, à pouvoir s'exprimer en public, en quelque sorte, euh, être des leaders. La, je dirais même c'est la base de la formation chez Metabo. Euh, permettre à chacun des participants, à la fin de chaque formation, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir entreprendre librement, sans embûche. Ce sont les gens qui viennent s'inscrire chez nous. Nous proposons, après chaque fin de formation, nous lançons une nouvelle formation. Les formations durent une semaine. Nous lançons, une nouvelle formation. Les jeunes voulant euh, eux aussi s'enrichir de, de, la richesse, de la richesse que propose euh, Metabo, viennent s'inscrire et là nous partageons nos expériences avec eux. Quand la formation concerne tout le monde, garçons comme filles, jeunes hommes, jeunes dames, ça concerne tout le monde sans exception. Euh, certains sont ici, ils n'ont pas eu, euh, par exemple, à avoir le bac. D'autres ont eu à faire des formations en restauration, en pâtisserie. D'autres, ils sont diplômés, ils ont eu leur master 2. D'autres même sont là, ils ont eu leur doctorat. Oui, il y a des diplômes certifiés que nous donnons aux étudiants. Non seulement il y a ces diplômes certifiés qu'on leur donne, mais aussi nous les accompagnons. jusqu'à la formation de leurs entreprises et à l'évolution. Nous leur donnons des conseils. Nous leur mettons en rapport avec nos partenaires pour qu'ils puissent euh, faire évaluer leur business. Bonjour, c'est Baba Kandong, président directeur de la structure Metabo. Alors, Metabo, c'est une structure privée qui s'active dans le domaine de la formation et la transformation et si la commercialisation des produits agricoles locaux. C'est une structure qui est créée depuis 2017 par des zones. bi ñu koy créer nag nekk ay xale yu ndaw yor ay idées tout simplement pour mettre en place amoon gëm pour que dañoo war a développer le Sénégal en commençant par notre localité muy la commune de Ngogom ci la ñu ñëw bo egsi fii au niveau de Dakar te on a eu à faire le tour du Sénégal il nous reste tout simplement à faire la Casamance c'est-à-dire zone sud bi. au début c'était trop compliqué puisque on avait des partenaires. ñu koy wax ISMA mu nekk université bu nekk fii à Guédiawaye moom tamit day yëngatu ci wàllum formation léegi moom bi mu ñëwee moom moo amoon le projet proposé ñu ko pour ñu yóbbu ko au niveau de Bambey pour décentraliser le projet projet bi mu ngi tuddoon banlieue emploi solidaire léegi nag bu ñu ko yóbbu au niveau de Bambey ñu changer le terme tuddee ko Bambey emploi solidaire comme bés comme jour un jour départ léegi nag c'était pour lutter contre le chômage dans le milieu rural zone bu ne ñu fexe nga am ci loo jàpp parce que jamono jooju noonu xooloon na ne zone yi dañuy teel a bàyyee jàng ñii dañuy dem sëyi te booy dem sëyi doo am benn métier boo xam ne maanaam da nga koy yóbbaale ñu taxawoon ci loolu nag fexe ndaw yi am xëy dafa nekk ay domaines yoo xam te ne tamit c'est des domaines euh, si les métiers d'avenir parce que tey ji bu ñu xoolee suñu enseignement académique bi baax na baaxul li ñu lay jàngal mooy la poésie le réalisme loo xam te maanaam ba nga nekkee xale ba léegi ba nga nekk université moom ngay jàng te ci am dara pourquoi pas nous cherchons des études poussées sans pour avoir des compétences élancées léegi nag Bayit Abo day ñëw jàngal la ci wàllum naka ngay amee la main la transformation des fruits et légumes la saponification et l' alimentaire loo xam te maanaam durant les sept jours boo paree da ngay mën a defal sa parce que da ngay am la main tey jii nii am nañ zone yoo xam te maanaam ñoo ngi à l'université ils ñoo ngi am master mais bu ñu leen waxee wala ñu defal ñu sant leen dara ñu def ko ñu benn xam-xam parce que amuñu les pratique léegi nag avec la cyclimate abo da ngay dañ lay former en pratique. on part avec nos propres moyens pour faire le tout pour servir la population sénégalaise parce que lii nii au début la ñu ko jàppoon mooy des dettes yoo xam ne maanaam maître abo da koo am donc ces yoo xam ne maanaam dañ koy war a fay la société sénégalaise lan moo tax ñu mën a mën a la c'est des dettes à tey jii école yi ñuy jàngee ay nit ñoo sacrifié pour defal ay école ñu jàngee foofu noonu ay nit taxaw sacrifié defal ay hôpital ñu fay fajoo kon maître abo dafa am ay dettes yoo xam ne maanaam da ko war a fay société bi moom tamit dafa war a defal loo xam ne maanaam société bi dafay war a gis boppam moo tax mu ñëw def ay formation yoo xam ne maanaam c'est des à des social ndaxte li ngay joxe pour ñu defal la formation boo ko bëggoon fay ci yeneen structure bi da ngay fay le double te du tax nga am xam-xam bi nga xam ne maanaam da nga koy amee fii nii dans la structure Maître Abo di remercier EPIC Maître Abo yëpp di remercier aussi les différents participants yi nga xam ne maanaam jot nañoo jaar ci structure Maître Abo en commençant par la première promotion de Bambey Séré jusqu'à la vingt-huitième promotion et di lancer aussi un appel à tous ceux qui n'ont pas encore fait la formation ñu dew inscrire pour suñu premier suñu yeneen promotion muy promotion 29 bi ak promotion 37 bi nga xam ne moom war a dans les îles du Saloum du 17 au 19 février incha allah. waaw ah, asalaamaaleykum maa ngi tudd Mamadou Dieng euh, dëkk île du Saloum nekk étudiant au département de géographie de l'UCAD waaw ñëwoon fii participer à la vingt e promotion de la Met Abo. waaw sama teewaay fii li ko waral mooy bëgg am benn expérience pratique boo xam ne dana ma mën a permettre. ma créé sama entreprise parce que département de géographie y de cela def nañ ci lu ëpp cinq ans mais ba tey mosuñ cee am sax stage daanaka lépp connaissance théorique la te fii euh, da ngay ñëw en une semaine nga am benn connaissance pratique boo xam ne mën nga ko mettre en œuvre euh, créer sa entreprise sama intégration euh, ci Euh, lien groupe bi maa ngi ko jëlee ci benn groupe boo xam ne aussi ci benn formation laa ci participé woon mooy la CSBG académie doon benn groupe boo xam ne dafay def euh, ay formation ay bootcamp de formation falaa gisee lien bi après mu intéressé ma ma intégré ci ma intégré aussi ñu jox ma vi ki vocaux explicatif yi ma déglu leen après intégré li ma leen di wax mooy ñu ñëw euh, intégré groupe bi ñëw def ci formation bi pour am expérience pratique au lieu que ñu topp euh, connaissance théorique bi rek ba nga xam ne daanaka mënoo ci jëlee dara wala boog par chance rek nga mën a am chance nga mën a am daal di am benn au moins benn stage wala bari na ñoo xam ne dañuy dem ba am i diplôme ba génn université bi te du ñu am liggéey te fii da ñëw en semaine mën nga opérationnel. du bu mujj mooy di merci di remercier euh, groupe bi voilà di remercier participants yëpp aussi. asalaamaaleykum maa ngi tudd Sophie Koné dëkk Yoff aéroport ñëwoon fii tey pour bokk ci vingt 28 bi nga xamante ne waa organisé par waa Met Abo Holding. Euh, ñoom dañ defoon benn concours euh, bu ñu organiser woon ñoom waa Met Abo léegi bi ñu defee concours bi yàlla def man ma gagné ko. comme dama ko gagné léegi ñoom ci seen kii euh, récompense bi ma waroon am mooy seen suivre seen ñaari promo seen ñaari formation gratuitement. concours bi euh, euh, kii la woon culinaire def petit four moom lañ doon defar loolu la woon. xamal la ma loo xamante ne xaw ma ko woon parce que dama def formation te bientôt ma pare incha allah dans six mois. mais li ma jàng ci diggante lundi ba tey vendredi yaakaar naa ne bi ma dalee def formation ba tey mësuma ko jàng xaw ma ko woon surtout euh, ni ñuy utiliser suñu euh, produit locaux yi fi Sénégal te lépp lu ñuy def ci formation mën naa ne importé la ñuy def suñ produit importé yi lañuy ñuy utiliser te jàngal nañu naka lañ koy utiliser loolu rek euh, bénéfice la ci. Ah, bon dama li ma leen di lancer mooy kon ñoom xamuñu parce que ku xamul. da boo xamoon da nga ñëw fii benn benn instant benn mën naa ne une semaine la ñuy def formation bi te euh, fait professionnel yi di nga def deux ans maximum trois ans de formation te fii huit jour la te huit jours yi di nga mën a comprendre dina la jàngal lu bari loo xamante ne doo ko xam kon nag euh, damay lancer message sama moroomu ndaw ñi nga xamante ne musuñu def euh, formation ñu ñëw inscrire ñëw essayer xool parce que lu am important. li nekk sama dernier moom mooy maa ngi remercier waa groupe Met Abo ci ci euh, biñ ma may promo biñ ma may ma mën a mën a xam mën a bokk mën a ràññee lu bari maa ngi leen ciy remercier bu baax a baax.